Balcom. Balcom pour avoir une bonne communication. Balcom, bienvenue chez vous. Fallo. Serigne Fallo. Serigne Fallo li ñu am ko may. Balak maram li ñu am ya nu ko may. Jërëjëf Serigne Fallo. Maanu ko may. Allah maaram lii ñu am tey moonu ko may jërëjëf sëñ Fallo moonu ko may jërëjëf sëñ Fallo doo donnu baay setey donnu maam ja Seex Waseynu Silla Ngaari yaa donnu sa ma paate borom diiwaan doomay donnu baay sa tey donnu maam yaa donnu sa maam alaaji Seex Waseynu Sylla diiwaan doomay donnu baay sa donnu maam yaa donnu sa maam Seex Waseynu Sylla ngaare baay yàgg fi رباني من لا إله إلا الله سيرين حسين وبن سبات دفلنا كلا سما مجلنا سبات لا إله إلا الله سبات لا إله إلا الله لا إله إلا الله li ma tëggaw lu dul ndigal amul njariñ te kat xamal ni ab sëriñ du bëgg nit ba fab njariñ jox ko te la ilaha illallah soo bëgg a teelee ni si sab sëriñ jox koy njariñ sëriñ ku koy jox njariñ mu di jox koy njariñam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 إلا الله لا إله إلا الله فلا إله إلا الله أبلغنا بيركم سسمت بنيا سوني أبنيا yëg di soññi ak añam nga bañ a bayee gàccee matam ba yàlla bay te muñ a muñ ngir ñu ngi lay toggali añ ay kat bu ñuy toggale añ na féete woore ko mbayam ito jërëjëf sëñ Fallu jërëjëf sëñ Fallu lii ñu am ñun yaa ko may jërëjëf sëñ Fallu sëriñ Fallu yaa ko may murito jërëjëf sëñ Fallou jërëjëf sëñ Fallou lii ñu am tey yaanu ko may jërëjëf sëñ Fallou Serigne Fallou Serigne Fallou lii ñu am moonu ko may balak maram lii ñu am yaanu ko may jërëjëf sëñ Fallou maanu ko may Allah maaram lii ñu am tey moonu ko may jërëjëfe sëñ Fallo moonu ko may jërëjëfe sëñ Fallo doo donnu baayi setey donnu maam ja Seex Waseynu Silla Ngaari yaa donnu sa ma paate borom diiwaan doomay donnu baay sa tey donnu maam yaa donnu sa maam alaaji Seex Waseynu diiwaan doomay donnu baay sa tey donnu maam yaa donnu sa maam Seex Waseynu ngaare baay yàgg feew diiwaana di pey ba góor yàlla yey njëkkante seex ma paate silla la ko buur bi yàlla jagleel diiwaana di pey ba góor yàlla yey njëkkanteel seex ma paate borom diiwaan la ko buur bi yàlla jagleel allahumma salli ala sayyidina muhammad wa sallim sëñ Baara Jaane sama moom yaatal leen ko mu ñëw nee na bi mu egsee daf maa leewu nii daal di koy jël daal di may jël jox sëñ Abdulaat génne bataaxal bi mu defoon ci poosam jox ko Sëñ Abdu Lahat bi ko Sëñ Abdu Lahat liiree ba noppi daal ne ko waaw waaw buñ ko yàkkamti waaye nañ ci am yaakaar lool te dana toflu ma toflu sama baay tudde ko sëñ Wuseynu ma tofluwaat mu tudde ko sëñ Xaadim mu tofluwaat ñu tudde ko sama magi baay jooje sama baay wax ne pas-pas bi mu amoon ginnaaw suñu borom yàlla dogal na ñeenti leer yi rek la ko yàlla may sëñ Wuseynu ak moom bi muy dund dañoo fareek baayam moom mii di sëñ Fàllu man mu jël ma boole ma ak sëñ xaadim sama rakk ñu yóbbu ma ci sëñ Modou Habib Sylla biñu eggee keroog ka doon bind booba xaw ko ndax miinu kër sëñ bi bi mu jëlee kaay bi bëgg bind sëñ Modou Habib daf ko ne ñii ñaari taalibe maa leen di bindal sama bopp ndax ñii dunuy taalibe ci kër gi ay rakk lan ci kër gi ndax seen wayjur mii maag sëñ Fallou danoo defal loo xam ne duñ ko fàtte ba buuf tay wal kon man lii moo ma boole ci cil la kon sëñ soxna gay mii di li leerok Baye Souley suñu àndeek moom mu siyaare ay sëriñam siyaare ay bokki sëriñam ba ñu wëlbatiku ñëw ci saab sëriñ dinaa ko leeral ne ko kii fi toog yéen a bokk na teen bi ngeen di roote yow nag dañuy ñaan ci barkeb sëriñ bi kóllëre gi ma leen boole woon daaw ngeen séq ko di ko dund te ngeen xamante lu yàgg dañuy dagaan ci sa barke doomi jaan du tuuti de lugukat ba nee na doomi jaan bul xàmmee bu góor bu jigéen bu la màttee dawal gaaw luggi lu ko mooy mu rey la kon doomi sëriñ fàllu doomi sëriñ waseynu setu maam ma paate bu tàllalee loxom bal tàkk soxna gay mii laa bëgg si la ngaari nga tibb ca démb ak bërki démb bala nu fee del si déwén yàlla nañ jiital sëñ Modou Moustapha Fallu ak ah, sëñ Fallu ñëw naan naan naan naan naan tuutànk yi kaay leen di siyaare sëñ sëñ Ousseynou man nga ko si la waaw ah, man nga ko ndax dañoo bokk lépp dañoo ma ma sama dañoo bokk lépp rek waaw bu ñu bokk sëñ Fallu Mbàkke Euh, maa ngi fëddale kóllëre gi di ko jokk bu baax a baax tey ñaan ci doole yi sëñ Jili Mbàkke waaw lépp lu sa mébét ci kër gi yaan ci yàlla defal ndam waaw loolu maa ko ñaan baax a baax rek cheb la dégg naa li nga wax waaw waaw gis nañ ko borom xayra <laughs> incha allah rabbi waaw nañ ci dal xel teref njot bu baax a baax rek incha allah waaw waaw jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf ñaan yàlla baax a borom yàggal la lool sa borom la sa borom la kàttan ba lépp loo xam ne naan nga ko ngir léegi ko sa maam Mbàkke na nga ko àggale ñu yàgg ko ànd ak yow di nuyu baax a baax sama doom baay bii ma àndal di sama sëriñ bi sëriñ Karim nga xam ne fii nga ñu boole woon Mbàkke boobu tamit ànd bi ñu ngi koy di ñaan baax tamit suñu borom yàggal yàggal la fi dolli la wét dolli la kàttan ba lépp loo xam ne ay mébét la yu fi ku baax ki bàyyi nga àggale ko ci sa sago ba liggéey sa liggéey bopp te ànd koog ñun taalibe yi ñu yàgg topp sa ginnaaw yàgg déglu sa sa ndigal te yàgg koo jëfee ñu ngi am mbégte bu baax nag ndax dañu dem bay jug suñu waajur wi di Cheikh Ibrahima Silla di doom sëñ Saam sëñ Moussa Lenda nga xam ne moog sëñ Fadé ñoo bokk ñoo ñoo ñoo bokk lépp ànd ak sëñ Cheikh Diwane Sëlim mi di rakkam di di doom sëñ Bass Sylla mu champat Sylla nga xam ne moom mi euh, sama sama baay bi muy naan ko sama ginnaaw yaa ci yaa ma ci wuutu ak bi mu noppaloo def na ñaar def na ñaar fukk ak juróom-ñaar waaw nga xam ne nga nga waaw nga 1989 la ko la ko la ko ne ko sama sama ginnaaw yaa ma ci wuutu bi ñu jógee ba ñëw moo ma ne ma dafa bëgg a ñëw ñëw ñëw ñu ànd ñun ci ziar bi suñu xol tamit seen loolu ñu am ci mbirte bu baaxa baax Mbàkke di sakku ñaan rek ci talibé yi ndax sëriñ lu mën rek talibé yi la Mbàkke nga la ma leen sama borom yokul leen defal leen ay xéewal te defal leen wër ak katan suñ ko amé de Mbàkke lo bëgg ci man atana ko man nag maa mal mal maa maa sama sama bop rek xoluma lenn bëgguma lenn gisuma leen itamit sama lepp mi sa loxo ak ak ak ak alakhirah ndimbal lu mu yàlla di dimbalee ndimbal jaar ci sëñ sëñ di jaar ci sëñ Fall Mbàkke bu jaar ci yow Mbàkke man bëgguma loolu loo amul loo amul Mbàkke man bëgguma te loolu mooy li ma gëm sama xol waaw waaw kon nag ñu sant baax a baax te incha allah rabbi benn fanu koor dinañ indiwaat ndogu comme ko defoon daaw waaw waaw waaw ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu sant baax a baax rek suñu mbokk taalibe yi ñu àndal dañ bàyyi ko Louga waa kër Baye Karim ñu ngi leen wan wan wan wan wan wan wan wan ñu ngi sant baax a baax ci taxawaay bi ndax xam nañu kat liggéey bi lepp rek ci sa ci sa jëm jëm Mbàkke lay lay dul suwaat motax motax lepp ñu ngi ñu ko raftal seen jëm kàttan kon nak ñu leen sant baaxa baaxa baax te ñaan nga ñaanal suñu suñu suñu waajur suñu borom yagal leen fi yagal leen suñu kanam ñi ngi sant baaxa baax te am te te am mbégte di la dénkaat suñu bopp di la njabot gi fu nek fu nekk sën sa ndigal rek moñu fu moñu fu moñu moñu fu bayyi luñ lu am itamit Mbàkke yaa ko suñu loxo لكن جاء أبي مرسل سماه

Deus. Bolcom. Bolcom pour avoir une bonne communication. Bolcom, bienvenue chez vous.